ok salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañ la. salaam ñu ngi nuyoo ñu ngi siyaar ñu ngi leen di fay. di leen gërëm di leen sant ci doxantu bi ngeen doxantu fii tey ci bois sacré bi waaw. dama lay laaj euh, sëñ bi tur beeg sant bi. waaw man maa ngi tudd Ibrahima Sagna waaw di yëngu ci wàllu li ñuy wax aada ak cosaan waaw muy aar ak culture waaw. Ibrahima Sagna buñ la buñu buñu xolé ñun ñi ñu la xamul wala ñi ñi di déglu buñu bëggé xam kan moy Ibrahima Sagna nga wax ñu tuti wa Ibrahima Sagna ben talibé la rek ben mbokk talibé bu yëng ci walu aada ak ciosan wa di dajalé ay bagage yo xamné fi ci Afrique le le, le bayeko wa ci sous région bi ak ci manam ci Afrique centrale bi ak Afrique de l'Ouest bi waaw ñuy yëngu nag ci wàllu aada ak cosaan lépp loo xam ne maam daf ko daf ko amoon doon ko jëfandikoo mu doon mu nekkoon mu nekkoon ci loo xam ne ci ci ëtt yi nekk ci kër yi lañ ko daan jëfandikoo wala loo xam ne dafa nekkoon ci këru këru buur waaw yooyu bagage yooyu la ñuy dajale pour di si mën a tàggat xale yi pour ñu mën a xam ñoom ñooy ñan parce que àdduna dafa dafa tërëri te léegi dafa baax ci ku ne nga war a xam fi nga jóge yow yaay kan da lay dimbale boo génnee feneen foo xam ne bokkul ak fi nga xam ne fii nga fii fii lañ fi nga meññ fii lañ la meññee nga mun a jànkonteeg ak yeneen i bagage ak yeneen i pexe ak yeneen i lijjanti yu nekk ci wàll bee nga xam ne suñu wàll muy Africa waaw. Ibrahima Sagna tey ñu ñëw fii ci milieu boo xam ne ñun ñi mën nañ wax ñoo ngi koy doog a gis tay. tey jii boo ñu mënee wax milieu bi fi nga nekk nii mooy fan tay, fu ñu nekk nii la laay wax sax mooy fan. waaw fii la ñuy wooyee bois sacré. mu nekk euh, ci biir euh, Ndakaaru nekk ci euh, espace bu mag bu ñuy wax parc géologique de Hann mu donc espace boo xam ne ñu ngi ko sanc en 2010 ci festival mondial des arts nègres la ñëwoon fii pour wane sunu liggéey ci li nga xam ne moom la ñuy yëngu finalement nag ñu toog waa parc am lu ñu waxante ak ñun ak ñu defek ñun ba nga xam ne dañu fi mën a toog di fi di fi yëngu di di di far di tàggat tamit ay xale yoo xam ne dañuy doon ay étudiants ñi doon ay élèves ñuy ñëw di yëngu si wàllu di gëstu ci li wàllu aada ak cosaan waaw. suñ la déggee dafa mel ni kon yow amoon nga beneen spécialité avant ngay ñëw fii lan moo nekkoon sa spécialité boobu. waaw man sama spécialité nag ci aada ak cosaan la musa la musa la musa la musa nekk parce que dama dama am chance juddoo ci kër gu mag goo xam ne. dama ñëw fekk samay jur di yëngu si aada ak cosaan ñu nekk ay joolaa yoo xam ne dañoo gëm luñ doon fonk ko duñ ko sax caaxaane waaw ma yàlla def tamit ma dugg ci juddu si quartier bu ñuy wax Médina bi ma juddoo tamit si biir quartier bi amoon bale bu mag bale traditionnel bu ñuy wax bu garabu amoon sama benn pap bu baax ñu ngi koy ñaanal sunu borom xare ko àjjana suuf sedd si yaram ñu koy wooye Bosi Bangoura bu jógewoon ba Guinée Conakry ñëw yaatal liggéeyam ci aada ak cosaan ñu tombeek tamit ñu dëkk ak ay nit yu ñuy ñu ñoo xam ne ñu ñu ñu ñu ñuy wooyee ci réew mi ñu doon ay nit yu yu am solo ji yongu si wàllu euh, aada ak cosaan tamit surtout côté musique ay Youssou Ndour ak ñeneen ak ñeneen ñu mooy mooy bokkoon si gox boobu si cercle boobu juddoo ci ci ci wàllu woowu waaw bëgg nag aada ak culture mu jaral ma lu ne waaw ma fonk tamit ki ma doon xam ki ma doon parce que dafa am solo Senghor da doon wax dafa baax nit ki xam ki mu doon ak fi mu jógee ndax da koy jàppale pour ëllëgee bu génnee mu mën a am nu mu jëfandiku jëfante jëfandikoo ak ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu ay bokkuñu ay ay ay ay ay defenukaay ak nu ñuy doxale waaw. dégg nañ sànq nga wax affaire festival des arts nègres la moo andil festival des arts nègres ak bois sacré ban lañ am ñoom ñaar. waaw xam nga festival des arts la ñu wax dañuy wane lépp loo xam ne bagage su nègre la te ñun ñu doon ay nègre ba pare fier parce que Cheikh Anta Diop doon wax ne nègre moom day nag dafa kontaan ñu koy wooyee nègre ñu ne ko lu tax mu ne nègre mooy race bi gën a pure xam dañ ne l'Afrique est le de l'humanité lan la ñu wax lépp fii la jógee waaw léegi nag ñun li ñu dugal ci festival bi mooy suñuy bagage yi nga xam ne dafa méngoog ak li Afrique woote ak li festival boobu woote moo taxoon ñu boole ñu si ci si ci ci ñooñ ñu tànn ci ñu war a ñëw wone li nga xam ne moom la Afrique soxla waaw loolu moom ma indi woon ci parc géologique de Hann bi ma nekk nii tey waaw. léegi bu ñu la am. depuis que fi ba lan sens bois sacré. comme je wax rek ci bois sacré ko ko ne daf ñuy neex yi di fi di élèves étudiants ak ñi ko sax mais bëgg a xam seen aada ak seen ndax dañ fi yor ay bagages yo dafa dafa dafa dafa laal Afrique la. Afrique Afrique de l'Ouest Afrique de l'Est Afrique centrale léegi nag utilité bi mooy euh, macha allah ñu ngi sant def nañu fi sax ay tàggat ak benn université bi ñuy wax université di Sahel maanaam bës boobu dañu jëloon bés boobu ne tey dañuy wane cosaan ak aada ci xeet bi ñuy wax euh, soose waaw ñu jëloon ay select ñu ñu tànnoon ci ay ay ay ay étudiants yoo xam ne ñii Zaïre lañ jógee ñii Congo ñii Burkina ñu defal leen cosaanu soose waaw indi kankuran won leen même bu leen wonul lépp itam ñu am lenn loo xam ne dina leen ko jàngal ba ku nekk bi ba delloo fi nga dëkk nga xam ne Afrique gàcce ngalaama Afrique li mu li mu denc si ay bagages ak li mu li mu li mu mën a jàngale dafa bëri waaw biñ àdduna di dox di dox musiciens yi tamit gis ko ñu fiy ñëw yenn saa di réaliser ay vidéo am na sax benn tutank bi fi réaliser benn film court métrage yàlla def ci at boobu noonu boobu sax moom la moom moo teewaloon Sénégal fi ñuy wax Clap Ivoire fële ca Abidjan Côte waaw ñu koy woowee Mor Talla Ndione waaw at at yi at bi ñu génn sax yaakaar naa bi bi filmam demee fa la ñuy wax euh, Clap Ivoire moom moo gagné meilleure image waaw. mën nañ la laaj depuis kañ nga nekk fii nii ak depuis ba nga fi nekkee ba léegi est-ce que yaa ngi fi yëg sa bopp dañ lay fay wala nan ngay nan ngay nekkee fii nii daal. waaw ñun ñu ngi sant bu baax ah wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñu ngi ñu ngi sant ñu ngi gërëmaat suñu borom di ko delloowaat njukkal moom mi nga xam ne mooy xool lu ko neex mu def ko mooy xool ku ko neex mu tànn ko am fu mu ko teg pour mu mën a liggéeyam ak mën a euh, maanaam message bi nga xam ne jeunes yi dañ ko soxla mu mun leen ko jàllale waaw sant nañ bu wér nag wax dëgg yàlla ñu ngi fii ñu ngi fiy yëngu ñu ngi fii ñu ngi fiy gis ku ne nag mais nag dañuy wax ne bërëb boo fa nekkee ndey ji sax ndey ji seex ngay ngay doon ñaaxaanaay ngay tëddee di nga gis tey ñu mer di nga gis tey ñu kontaan mais ñu ngi sant yàlla parce que bi ñu fi daree nekk di fi di fi di fi di fi tertu ay nit da gis ku indaale yenu problème am jóge fële ñëw ne ma man de saa yu ma ñëwee bois sacré damay yëg beneen tawféex damay fàtte samay coono damay fàtte samay mébét damay fàtte damay day mel ni beneen àdduna laa ñëwaat daal te très c'est très important maanaam nit ñi dafa jot ñu xam ko parce que euh, bois sacré dafa nekk fu doy waar muy mooy parc géologique géologique de Hann nga xam ne moom rek moo fi des ci àll fii ci Ndakaaru foo xam ne mun nañ fi féexlu mun nañ fi ñëw di gëstu bu ñu waree mun a nekk ay bind bindkat war nañoo bind bu fekkee dinañ mën a dañuy doon ay journaliste war nañ fi mën parce que tamit élèves yi dañ fiy ñëw macha allah di fi di fi di fi di fi di fi di fi di fi xoolaat seen i seen i seen i ak yeneen ak yeneen te koo si dajal yenn saa sax da koy fàtte mais da laan tonton man de alhamdulilah am naa bag wala am naa lii am naa lii kon dañuy sant yàlla ndax biñ koy sañ tam danoo ñaanoon suñu borom ne fii képp ku fi ñëw te sa ajo yor narul faju yàlla bul fi xam Touba Sacré dafa am beneen beneen image wala leneen tey jii nekkul ci jàngale rek mais dafa am leneen lu muy def ci doomu yi mooy lan lan lañ loolu lañ bëgg a xam. gars yi da wax nañ ko gars nañ ci seen bopp ñoom ñu ngi si comme li ma la wax sànq rek da ngay gis ko am ay nattu am ay gàllankoor mais dañuy dañuy gis ne ñoom bu nu ñëwee fii rek day am tawféex loolu nag suñu borom la du man waaw man dam fi nekk rek Don ko xamne dama feeru tok pour seytu bërëb bi pour xol bagage yi fi nek ak yoy mais loolu yalla moko def dañuy njikol delu wat sun borom wat ko lepp wa xamne lepp mom la wa bu nexé nak mu naqari ñu ngi muñ ñu ngi tok wa parce que tagal nañu tagal tagal nañu bu ñu mëna xaar loolu dal wa bu ñu gisé fi tay ji ni mu bindoo gis nañ fi ay garab ay statuette lu nek li ni lan moko fi andi wa wa li ko fi indi moy comme li mo wax sank wa yalla dafa def man ma ma ma yàngu yag yëngu ci li tubaab di wax collection maanaam dajale ay bagage maa ngi ko commencé en 82 xawma 80 xaw 86 82 86 su ma juumulee ci jamono yu laa commencé jalal euh, dajale mu jaral ma may dem fu ne dem naa ba Mali di gëstu ada ak cosaan pour xam kan mooy africain bi waaw lan la lan la ñu suñu borom dencal waaw parce que masque boo fi gis ak instrument boo fi gis muy ndënd. dafa am lu muy tekki dafa am lu ko fi lu ko lu tax ñu indi ko fi waaw nit nag boo dajalee ay bagages ba indi ko si barab nit ñu ñëw di fi di ko gëstu war nga leen mun a wax lan mooy njëriñam ban bant la lu tax ñu koy tëgg lu tax ñu koy ñu koy jëfandikoo lu tax ñu koy ñu koy ñu koy kii waaw noonu la demee. tey jii nag bu ñu seetloo bari bi nii mu mel ay tubaab dañ fi ñëw wala yeneen xeet yu yu dul sénégalais kese ñeneen dañ dañ fiy teg sànq di xool. waaw day am ñu bëri ñu fiy ñëw muy ay nasaraan muy ay sénégalais muy doon ay africain waaw dañoo dañoo jéemoon daal maanaam jéem a defar Afrique bu ndaw ci biir parc géologique de Hann bi mais gis nañ ne macha allah mi ngi noonu ñu ngi koy ñu nit ñaa ngi fiy ñëw dëgg yàlla ñu ngi fiy ñëw di gëstu ñu ngi ñëw di xool nit sax day ñëw ne la man de wax dëgg yàlla lii xawma ma man si xeet bi laa bokk mais xaw ma woon ne lii ak lii nekkate nii ak nii la demee waaw ci xam-xam bu gàtt bu bu ñàkk solo bi nu am ñu xamal li nga xam ne ñun tamit loolu loolu gëstu woon ci yeneen réew yu bokkut ak Sénégal nga baal ma tuuti mais bu ñu la xoolee dafa mel ni dëgg la nekkoo mag noonu waaye am na loo xam lu bëri bari ci ci culture Afrique waaw ñu la doon laaj foofu noonu ko tuuti rek. waaw dama am ndimbal ndax sa ki ma yar da doon wax Ibrahima am nga sens mu ne ko soxna lu tax mu am sens doo am nga dajeeg mag bu mag yar yar la mu ne man dama dajeeg mag boo xam ne mag a ko yar. waaw mu mu mu ma koy ma koy ma ñaanal tam fi mu tëdd moom it sunu borom. seddal suuf si yaramam te xare ko àjjana waaw waaw moom mooy moom mooy moom mooy sama wayjuru jigéen waaw mooy sama wayjuru sama soxna wayjur la woon sax waaw mais man bi ma juddoo man moom lan ma féetale ñu koy woowee soxna Baaji ma koy ñaanal yàlla seddal suuf si yaramam encore une fois ah, yóbbu ko ci àjjana yu kawe yóbbu yóbbu ñëpp ñi nga xam ne tam danoo yàq seen ñàkk seen wayjur muy góor ak jigéen waaw waaw. ñu bëggoon nga wax ñu tuuti rek ci culture Afrique waaw xam nga culture Afrique dafa dafa dafa dafa am solo dafa am dafa am njëriñ dafa am importance parce que nasaraan dafa noo doon koo xam ne du doy waar ku doy waar du wax nit rek nii nii nii lu ko neex danoo gëstu ba ba nangu ne ñoom Afrique lépp fi la jóge kon ñun lépp lu am dañ ko war a tiitaroo dañ ko war a fonk mooy li ma leen doon sànq avant ñuy commencer interview bi ma ne dafa dafa baax ku ne nga xam ki nga doon xam fi nga jóge waaw ndax suñu sant yi sax dafa am dafa am lu muy tekki waaw ñun ñun ñun Afrique lu nu làmboo ci ay njëriñ ak ay tawféex dafa bëri waaw kon ngala ku nekk na góor góorgóorlu ci wàll bi nga ne nga nga gëstul ki nga doon xam ki nga doon dafa am solo lool lool waaw bois sacré nag waaw bunt yëpp la ubbi ubbil na ko ubbil na ko nasaraan bi ubbil na ko chinois bi asiatique bi africain bi waaw parce que dañuy jàllale li nga xam ne moom la ñu suñu borom dimbalee ba mu nekk si ñun ñu bëgg ko wan ñi nga xam ne tamit yittoo woon nañ ko soxla parce que société bi jamono ji ñu toll ni contre valeur rek la ñuy dund yaay booy du neex a wax nag mais Sénégal contre valeur Afrique sax laay wax si la ñuy dox waaw léegi nag danoo bëggoon ñun si wàllu bi ñu féete ñu suñu boroom am lu ñu dénk ñu bëgg loolu mu ñu dénk ñu bëgg ko jàllale bëgg ko jàllale naka jàllale ko ci tout tànk yi parce que ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy njëriñu njëriñu Afrique ëllëg ñun si ñoom lañu am yaakaar di leen ñaanal suñu borom dafal leen cat musal leen musal leen ci balaa waaw defal leen ay tawféex defal leen ay ay ay ay ay ay ay xéwali xéwal ñi nga xam ne tamit ñooy way juri ñu yar encore une fois ñu yar xale yi parce que bu ëllëgee dañuy rendre compte te koo xam ne nag da ngay compte da ngaa war a góorgóorlu waaw ñu jàngal xale yi yar leen ci nga xam ne si li nga xam ne mooy suñu ay aada ay suñu cosaan waaw ñu bañ a wax ne ñun dañu dañu dañu dañu gëm leneen gëmuñu leneen yàlla rek leen gëm ñun yàlla moo fi ne kon nag nañu yar xale yi ci li nga xam ne moom mooy aada ak cosaan bi nga xam ne ñun moom la nàmp moom lanu moom waaw ndax euh, dafa am benn gëstukat bu wax bu wax ne bu ëllëgee la rendez-vous universitaire universel africain yi duñ fa ñëw ak loxo nen africain yi dafay dañ fay ñëw ak seen i kon nag dañu góorgóorlu ba bu ëllëgee ñun bu ñu fa waree daje képp koo xam ne fekkee nga ko fekkee nga ko booy ñëw nga indaale bagage bagage yi mooy nañ yaraat encore une fois xale yi nañ leen yaraat nañ leen yaraat ndax xale yi ñooy ñooy meññeef ñooy meññeef bi nga xam ne ñun bu ëllëgee ñun moom ñoom lañ mun a tiitaroo ñoom lañ mun a ndamoo. léegi laaj bu ma la bëgg a laaj mooy tey jii koo xam ne day nekk gardien euh, bois sacré ban comportement la war a am ndax fii boo xoolee di nga xool ne bërëb bi dafa xaw a raglu ban comportement nga war a am pour mën a nekk fii nii tey jii. waaw comportement bi ma comportement mën a am mooy dañuy waajal rek ndax ñun ay doomu joolaa lan ak ay soose. waaw ci ku wax soose wax joolaa xam ne ñun Casamance danoo am sunuy bagage bopp danoo waajal nag waaw dañu waajal ba nga xam ne jekk nañu ñu ñu bàyyi ñu nag ñu war a war a dem jànkonteeg àdduna. ma dangalu tuuti mën nañ xam waajal ci ban fànn ban côté. waaw waajal ci ban fànn la mooy mooy mooy mooy ku ku wax ku wax ku wax Afrique wax Sénégal xam ne ñun danoo am suñuy suñuy suñuy bagage wu bopp ne góor dañ koy waajal comme ni ñuy waajalee jigéen bon ñi nga xam ne danoo danoo ci wàllu. Euh, soose mi mooy mooy mandi mandinkool ñoom dafa am nu ñu leen di waajee joolaa itam dana am nu leen di waajee ñuy wax bois sacré léegi nag ci bois sacré boobu ñu ñu tuddee barab bi danoo wax ne danoo fier ci lu ñu doon danoo kontaan nekk ay africain danoo kontaan nekk ay sénégal danoo kontaan nekk ay jola ay soose ak ay séeréer ak ay pël ak ay tukulóor moo tax ñu tuddee barab bi le bois sacré waaw nga xam ne day neex dégg nekkul danoo danoo doon dañ ko mënul woon jox beneen tur mais dañ ko jox tour bi pour ku ci nekk nga mun ci nga mën ci gis sa bopp africain bi mën ci congolais bi gis ci boppam sénégalais bi gis ci boppam rwandais bi gis ci boppam burundais bi gis ci boppam waaw tënk wax ji léegi nag euh, dama bëgg rek nga wax ma mi lii wi sa ginnaaw ak yenn yi lu muy signifié benn bu nekk si ñoom rek après ñu tëj waxtaan bi aha lu ma mën a wax mooy am na benn instrument traditionnel bu féete fa la ñuy wax bombolon bombolon ku xam ku xam joolaax wax bombolon ndax bombolon dafay instrument boo xam ne day day joxe ay message tubaab bi tuddee ko le tambour téléphone waaw muy muy instrument boo xam ne bu dëj amee bu ngénte amee bu mariage amee dafa am nun koy nun koy tegee pour yëgal ñeneen ñi nga xam ne maanaam yëgu woon yëgu ñu yëgu woon ne fii ci bois sacré ñu nekk nii am na lu fi xew pour keneen ku nekk feneen parcelle wala feneen bu buñ ko tegee moom it mu mën a jot message bi xam ne ah bois sacré kat am na lu fa xew waaw mooy bon plan tubaab booyee ko la tambour téléphone parce que euh, bi sama ginnaaw ni euh, Afrique ñaari dëkk rek la jigéen dul sol masque muy Sierra Leone ak liberia wa mais yeneen dëkk yi nga xam Afrique noire du fa sol masque wa kon kon suni suni masque ak suñuy esthétique dafa am lu muy refléter dafa am lu muy signifier et c'est très important encore gars yi nañ bàyyi di wax ay xërëm la ñuy jaamu jaamu ñu xërëm suñu borom subhanahu wa taala lañ gëm et puis le mot ceddo bi gaay yi déformé nañ bàyyi diko ko déformé ceddo du kuy jaamu xërem ceddo moy ko xamné Lum la wax dina ko def ku deug ko xamné du fen du wuruj du sàcc du doxane jabaru du yakalaté waaw lool moy le mot ceddo dans le vrai sens du mot ça vient des mandeng encore une fois nañ bàyyi di yak. di di jël fi nga xamné moy toujours fu fu bon fi di wax ñoñ ay ceddo lañ waaw ay pur croyant lañ gëm suñu bop xam ki ñu doon motax ñu melni waaw mais yàlla suñu borom subhaanahu wa taala rek lañ gëm waaw. léegi ma lay laaj ne laaj bi mooy euh, ndax bois sacré bi benn rek moo fi am fii Dakar ndax ñun ñu ngi koy doo gis ñun. waaw man ci li ma ci li ma xam moom de laa moom laa fi gisagu waaw toogaguma feneen ba ñu wax ma ne am na beneen wala gis nañ feneen waaw bii daal lan lan suñu gi ñu féete ñun bii lañ fi xamagum waaw bii lañ fi. sëñ bi looy tëjee. waaw li may tëjee mooy di ñaanal àdduna yëpp am jàmm yàlla defal ñu jàmm sutural ñu aar ñu yiir ñu

ak ki nga xam ne ki nga xam ne mooy directeur général des eaux et forêts muy muy muy di ak ki nga xam ne mooy Ibrahima Ndiaye mooy xam moom mi nga xam mooy directeur parc géologique bi an bi waaw ñuy ñu leen di sant encore di leen gërëm waaw di wax ne vraiment euh, kontaan nañ trop di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex waaw waaw merci jërëjëf waay